ca gan gaa ngoog. gan gi sax gan la. fi <laughs> la bokk <laughs> waaw kañ fi la bokk. yoonu géej gi ah. ndeysaan ah, pourquoi Mame euh, pourquoi Mame yoonu géej gi euh, dàkkantal boobu pourquoi. waaw euh, nit de li mu butéel lu ko fees day soppi turam. Mm-hmm. tey jii ndox mi ndox ci nekk. Mm-hmm. mais butéel bi ñu koy defal ndox mi moo moo ko tax a jóg. Mm-hmm. mais boo ci soloon lem tey. boo joxee sa doom bu doo ko ne bu ko itil indil ma butéelu Évian ba mm-hmm. la nga koy wax mooy indil ma ndox euh, indil ma lem ja mm-hmm. kon dafa fees turam mm-hmm. te tam boo boo gisee même mbëri làmb yi sax dañu am diw numéro deux fan buñ ko fan moo tax euh, ki tuddee boppam Yékini dinaa ko tudd kim tuddee boppam sax du mbër joueur buy football la Rachidi Yékini yes Rachidi Yékini ñu ngi fàttaliku Sénégal 2012 fii 92 euh, Sénégal du moins pardon waaye euh, bëgg la rek yoonu géej gi peut-être xëy na bu fekkonte ne sëriñ bi dafa doon euh, euh, yoonu murit post yu ñu fubal ma ne man boobu laay sol te mooy attaquant bi nga xam ne nag moo war a toj kër gi parce que tey boo ne woon sëriñ beek alxuraan laa soxla dama naan la xaaral ma wool la diw moo ci gën a màcc boo nee sëriñ beeg tasawuf man la bàyyil ma woowal la diw suñ xaadim njaay kayaar u xaadim njaay tasawuf ñooñu boo ne woon sëriñ tubaa ak mag ñi daak donte xam naa ci lu bari am na ñoo xamante ne ci loolu lañ gën a gëstu waaye nag boo nee yoonu géej gi nag wooma moom loolu la yàlla dugal maa ko moom yàlla nga gëstu ci yoonu géej gi yoonu géej gi nag euh, loo xajul fii waxtaan wi mais am naa ay étape am importance yoo xam ne dañ ciy dellu siwaat ci lu bari. bokk na ci julli géej gi ak yeneen mais étapes yi yenn étape nga ñu mën a ci yoonu géej gi ci étape yi la gën a marqué ci tukki boobu Cheikh Ahmadul Xadim doon def waaw moom moo ne zababu xaybati mhm. an allaha araada an anaala min ujaa wa an akuna shaafi an li xaw mi wa an akuna xaadiman fi daw mi mhm. mu wax ni le motif de mon départ de en exil au Gabon mhm. est volonté que a eu d'élever mon jusqu'au près de lui de faire de mieux l'intercesseur et le serviteur éternel du prophète euh, di euh, sëñ Omar tubaab bi bi mu ñëwee Sénégal dafa mel ni benn tusuñe boo yóbbu ci poulailler ne ko bu fi ginaar des sànq sunu maam yi tiital ñenn ñi rey ñenn ñi mhm. parce que boo demee fii ci gore li nga dégg ñu ne la maison des esclaves am ay chaînes yu ñu la fay wan yoo xam ne dañ naan la lii lañ daan takkee maam yi ci ay jéng waaw ci ay jéng ku dëgër bopp mhm. parce que nit ku ñuul mësta bëgg ko ko moom mhm. xeex boo mës a gis rek yaanu yi moom moo ko waral mhm. France bi ko Hitler bëggee moom muy Allemagne dafa lànk ñu xeex ci la Hitler bindee woon mooy bi sénégal yi jógee fii dem xeexali France wax ne si ce n'était pas les noirs je bombarderais la France dans vingt quatre heures et je mettrais De Gaulle dans un bouteille et je lance dans l'océan Atlantique mhm. Hitler moo ko bindoon mhm. Kajoor bëgg moom bawal bawal lànk ñu xeex mhm. kon kenn ku bëgg ku la moom amul tey am na ñoo xam ne bu ñu duggoon ci askan sax bëgg ñaan dañ naan dañoo moomoon seen maam rek am na ñu ciy askanale askanu njaam ñu xëy na dañoo jàppoon seeni maam jaayi leen jaam jenn jëm rek mësa dikk ñu ne ko nag yaanuy moom. mooy kan. te ku mu nangoo moom. nga ëppee ko puissance ka mu moom. keroog ba mu moomee Seex Ibra Fall ku sant Fall bëggoon nga di Seex Ibra. àddina di dox France ñëw Sénégal. demal ci olofalu sëñ gaawaan ba di nga xam ne góor desatu fi woon. bu ngeen gëmut li yéen muriti gaawaan yër leen ay euh, téere aayati aawaan. xam ni kon bu du koon ak français yi mu Ka ko wax mbir yi amoon danaa maat fi saa si lañ defoon gars yi gëmoon yonen ba misaal mi war naa feeñ ci gaa yi Bamba waaye français not na góori Sénégal ñii mu fetal ñii mu dugal ci Sénégal ñii génn gàddaay far dem ba faatu ñee joxe seeni ngànnaay ndax nu yaatu foog nañ saa móor yi ci réew yi soose yóbbu bagabon booleeg baraama siise taale ko pour ba ñuy lakkee mbulancé yëpp ko ca biir laaw la ma français ñoo génn làmbi julde réew yi ñooro Mm-hmm. rey màkki doom ja jàll Fuuta Tooro mm-hmm. ñoo génne almaami Ali Bokar Ahmadou Seexu jàpp Abdou Xaadir mm-hmm. jàpp almaami Abdou Bokar yóbbu Gabon doom ja ñu won ko puutar buuru Kajoor yi fi nekkoon di baawoon ñu rey leen xëy taxawal Tiwaawan raatale doomi buuree woon fa Saalum raatale siin gànnaar taxaw ni maalum sëriñ si woon diggante waalo ak njàmbur ñu jàpp leen kenn defatul ab jàmbur ay na sëriñ Màkka Siise Biraama xaali ñoo ko ni cas moo rawoon kuy xaali surtout Matar Ndumbe mi sancoon kokki Ahmadou Aminata tubaab baa ko sànq. Mhm. Afrique la tubaab bi ñëw. Mhm. toj toj Sénégal bi mu fi duggee. Mhm. siin la jëkk a tëj. tëj Kajoor tëj Bawol. góor taxawutu fa sañ wax. ñu dugg Gànjool dem ba Waalo. les cinq territoires du Sénégal tubaab bi moom ko. ne sama doyale doyul dem Côte d'Ivoire rey fa juróom-ñaari góor. dékku. Jomati Aladeye Sossou Kodetu Sambé Kilo ak Anteño ñu jóge fa dem bene bene ñu rey fa Dac Silva Félix rey ku ñuy wax Yawema Yamara rey git ca Dawme Dawme ne nut góor yi ngootut ñu dem gine jàpp Samori Touré jàpp Saranké Céré Mori jàpp Mori Souma Jabate ne naa dellu senegal xoolaat ba xam am na ko yëngu def patrouille wër-wër gisul ko yëngu dugg Bawal góor gi semmal a gàggante gànnaar ramle rodomi soxna yépp ren di iblis sa gabon tasaare taali jàngo yi sëñ Moussa Ka ni ko tey ma bàkk la yaaram bi yàgg ngaa daan magi cerno ma sàmba wa sidi gaawaan bàyyi basiroog baara wa abdourahman may munaat fatidia wa assu gaawaan góor ga demoon sax saara fa banni maan wane fay xar baax feeñal fay kéemaan naaree naan seex ñëw na ku mar naan daan jiitee soo daan jullee fa diwaan jaaxal na paab ya doon boroomi raxwaan tuubaloo na buur siin raamloo na mbaaxaan macha allah kooku la tubaab bi jàkkaarloo sëñ tubaab ne ko say bal jeex na. waaw bis boo jaxasoo man di nga xam ne jërëtoo jaxasoo góor gu mel ni man. ñoom ñu bind na après avoir examiné certains problèmes relatifs à la colonie le conseil a approuvé la décision des membres si désignés d'exiler au Gabon le marabout Cheikh Ahmad Bamba qui doit être embarqué le 21 septembre 1895 une pension de 500 francs par mois lui sera accordée durant son séjour au Gabon kañ lañ ko def ci weer wii émission bii ngeen def tey. Mhm. émission baatin la. weeru safar. weeru septembre. satumbar waaw. le 5 septembre la sëñ jaxas daje conseil privé. Mhm. muy ñoo xamante ne kenn mësu leen a ñemee xool. Mhm. yoon wu njëkk wa maam Cerno la la yebal. le 17 août. le 10 le 17 safar. dëppoog le 9 août. en 1895 la yónni maam Cerno ne ko demal ca kañuy jay ca Ndar. naan ko mooy borom ndar te du dëgg joxal ma ko bataaxal bi na ko xol te booba borom ndar du tegante nit ku ñuul loxoog loxo Cheikh Ibra Faati agsi ñu joxoñ ko palaat mu ne yónniwuñ ci palaat ñu ne ko palaat nga koy teg brigadier bi jël ko jox ko le moo koy jox borom ndar maam Cerno loolu lu tax ñu ne ko dala dalaa seexlu der bu ñuul bi Cheikh Ibra Faati bu seexlu day am maa ko war a seexlu ndax moom leer na ma ne amut njàpp xamut nu ñu sangoo te set naa wicc te lettre bi jomb na ko ndax loxo ba mu jógee nee na wan nañ ko fay bali fetal waaye xàmmewu koog neefaree gileem hmm? seex suñ <laughs> tubaa la jógee moo tax moo tax yoon yi du yoonu ragal du yoonu yox yoxi du yoon wu ñuy neexale kenn wala complexe donc sëy ba faati taxaw tubaab bi ne lu mu wax ñu ne ko bataaxal la yor fu mu jógee mu ne si Amadou Bamba mu ne may naa ko moom sël man nangu bataaxal bi sama loxoog loxo moo tax sëñ Moussa ne ko yaa jëkk a dem ndar fa kër borom ndar billaahi yaay góor Cheikh Ibra Fati l'âge de 33 ans la jàkkaarloo ko ko mhm. fii kuñ fi doxoon convocation ne la wuyul dik koo jox lettre bi ne ko yaa may demal moom la déet yow lan woo mhm. billaahi <laughs> te ñee ñoo gën a garaaw mhm. conseil privé ñoo gën a garaaw dañuy rey xam nga dig rayegul te gars yi dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy romb rek man saa yi ma fa rombee nii laay xool maa ngi bari nooy xoole nii duma leen xool nii laay dawale ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen te ñoon duñu rey léegi après Cheikh Ibra Fati ah. Ah. léegi cheikh bi Cheikh Ahmadul Khadim waaw kay foofu point boobu. baax na de waaw non non mais. yéen a leen mais ci continuité bi lan la toog kii ba. bi est-ce que tey ah, jot na laaj. non mais ci am ah, na ko de. aywa continuité bi. dagg bi la ne waaw Omar dagg nga fu neex. voilà Omar fa nekk dafa neex. maam Thierno. Hmm. bi muy dëpp. Hmm. tubaab bi nee na sax baalaale numéro 4 daf ñuy nax mais moom la. ñu ne ko du moom c'est son petit frère. Hmm. ci lañ jox commandant cercle bu Louga Leclerc. mi bindoon. nga dégg ñu ne la lecture des rapports de Moussa Merlin et Leclerc et fait comparaître Ahmadou Bamba a été d'avis et li qu'il y avait lieu de l'interner au Gabon jusqu'à ce que l'agitation causée par ses enseignements soit oubliée au Sénégal nañ ko yóbbu Gabon jàngaleem dakk dara dootu fa am ci biir loolu maam Thierno bi mu génnee le 9 août ci Leclerc la jubali Louga ñu ne ko deux ordres lañ amoon benn bi réussir nañ ko tey. Hmm. buur bu ñuy wax paate. day jàngale ñu tere ko mu bàyyi mu bañ. ma nga ca waalo tey ci 9h lañ ko jàpp fodong nañ ko ba mu ne kodd dénk nañ ko chef de canton bu ñuy wax Jamar Mbodj. Hmm. bu ñu dëppee ci Seex Ahmad Bamba demee à 10h fu mu nekk dana dem ndar ci par force. Hmm. maam Thierno ne leen boo leen dajeeg Seex Ahmadou Bamba di ngeen xam ne Ahmadou Bamba du paate paate du Ahmadou Bamba. Ah sëñ Touba mel ni ko ja gajajam taxaw na ana Thierno ndax ñëwagul. Mhm. le 10 août. Mhm. ci fajar maam Thierno nuyu ko. mu ne ko nasaraan bi lañ ma wax mu ne ko dara matumaa wax. Thierno mhm. lañ la santoon démb nga bañ fi sama kanam la. waaye sa jëmm démb. jëmmi malaaka la ko sunu borom soppi daanaka. la ko dalee sa ndigg ba ci sa bopp maa fa nekkoon ku la laaloon daanu sëñ sëñ Musaa Ka ni ci yàlla jëmmi nit ji koy malaaka maam Thierno Faati ute naa ak Musaa Ka nañ mag ñëpp génn sëñ fàllu am juróom-ñetti at Cheikh Moustapha al Karim am juróom-ñetti at yu teg tuuti mu déej seen bopp ne leen dénk naa leen yàlla muy bisu màggal gii li tax kenn mënu koo fomm ay pexe defu ko ay pexe du ko fomm mu yi daje bëgguñu rek daje ndigal lañ jot ci sëñ Tuubaa moo tax beneen digal mënu cee tegu mag ku fi ne da ngay fàttali rek waaw bis bii xarajte yow ma sabti zamine asar li xidmatil muxtaar fii chehri safar ne sëñ fàllu yow sa borom nee na loo dogu mu def ko dogal ma ma doog a dem sëñ fàllu nee na ma ne ko demal léegi dikkaat léegi indi sërite bu neex ñëpp di ko netti bi sëñ tubaa pénétré jeewal jóge mbàkke baari mhm. sëñ omar ñaana yen woon wëlis wa sëñ ma bànji njaay ca la bokk Cheikh Ibra Sarr Njaañ ca la bokk ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen Cheikh Ibra Sarr Njaañ nee na gis naa ñaari giléem ci àll yi ñu àll bi ñuy dóorantaay bopp di yuux mu daw ba tolloog sëriñ bi sëñ bi ne ko Ibra Sarr lu mu doon mu ne ko giléem yee laa dégg ñuy wax kooku xam nga ni sëñ Tuubaa rek a mën a nekk patron kuy dégg waxi giléem mm-hmm. mu ne ko lu mu wax mun ne ko benn giléem bi mi ngi naan kee di dem mu ngi tukki tukki boo xam ne mhm. ab yonent mësu koo tukk du xutbu samaan du nujja baaw du xawsu mhm. waaye yàlla dana ko ci faye loo xamante ne njariñi nit ñi àddina ak àllaaxira ci loxoom la koy teg bu ñibbisee mhm. mu ne ko waaye mbàkke beneen giléem bi la mu ko tontu mooma reeloo mu ne ko lu mu ko wax mu ne ko beneen giléem bi mi ngi naan tey de laa waaru tey laa mës a gis ay xar yu wom mat gaynde ne dañ ko yóbbu keroog bi Sëriñ Tuubaa waree dajee gouverneur général commandant le Leclerc ci àll bi la dajeeg ñoom sëñ Omar ku mës a ànd ak xare boo gisee say noonu danga nga naan jekkalaat leen fitt yi karab bi nii na na na soxu ku mës a jàkkaarloog say noonu ku mës a xare ji da nga naan jaasaat leen jaas yi waaye jàkkaarloog say noonu ba xam ne ñii say noonu la muy en effet un détachement de cent cinquante tirailleurs et de cinquante espèces déposant cent cartouches par homme soit vingt mille balles. Mhm. et mis sur pied il pourra éventuellement recevoir l'appui des partisans de cet indigène de tous acquis aux colonisateurs les frontières avec la Gambie sont fermées. Mhm. macha allah frontière yëpp Sëñ Tuubaa nee na bi ma leen gisee seen fetal yi xàmmewu ma ko toolu dugub ju nangu <laughs> mu ne ma bànj ñii ñëmu mu ne ko tubaab yee fu jëm mu ne ko mbàkkee yow la doon jëli mu ne ñu dajeeg man ci àll bii mu ne tey ñu xam ni. mësuñoo dajee góor gu mel ni man. daal ne ma bànji mu ne ma ko tàllal leen ma ñaanal leen ngeen dellu. loolu la ñu waroon a dugal ci école yi jàngale ko. wallaay. c'est la première fois un négro africain. jàkkaarlook ay noon yoo xam ne ay tubaab lañ fetal lañ yor. yow nga yor xalimat ba pare ñi la doon gunge ngeen leen dëpp leen. man ngi di dëpp ñii di jooy. jàpp na ñàkk nañu sëriñ. Mhm. li garaaw tund jeewal ñaari tund la. Mm. xur wi ta nekk nii li gën a garaaw mooy sëñ Touba moo leen jiitu ci xur wi. jeewal fu mu nekk. jeewal mi ngi ci région de Louga. Louga waaw. li gën a doy mooy sëñ Sa Ndiogou. waaw Serigne Touba ci boppam moo leen jiitu ci xur yi. Mhm. fi mu ne saa yi ma gisee làmb am. waaw ba ma gis menn mbër daal di teel a dugg si naan ni temps bi. sama xel bis boobu la may jox. ku am confiance mooy def noonu suñ bi moo jiitu ci xur wi. moo tax ñu naan dem na jeewal te deewul. dem na jeewal te jeexul te jeexul dellu si fii di ñu seexal bamba doomi jaara. Mhm. <laughs> ki ne daal ne nag soxna jaara sa doom ji jar na soppi ku maabu. <laughs> di xaram ak riiti jar na fecc ba yaaba. <laughs> waaw man sama léegi jar na fecc ba yaaba. dinaa ko neexal ki ne la. Mhm. damay dégg jar na ko nag na ko. mu daal di ñëw. Mhm. ne leen dama ñu yónni ndaw ne ko ne ko moom lañ doon jëli. Mhm. daje na ñoo moom kon am nañ confiance. Mhm. waaw na ñëw ñu dem mun leen damay yendu suñu ablaat bu ko daan nettal danaan dana leen damay yendu. Mhm. ñu dem ba tisbaar ñu ne ko takk jot na mun leen damay fanaan. Hmm? waaw. moo tax sëñ Modou Kara naan ma maam Mor fanaan la wala fanaan <laughs> la ma ne ko fanaan na mais lan moo ko fanaandoo waaw parce que tubaab dañ ko wër encercler ko ñu toog ma mu yàgg mu wër wel ginnaaw multiplier leen par zéro jël xalima gi jàng juróom fukki bés bismillahi rahmaani rahim tifli ko ci joxoñ jaww ji ahlu badrin wàcc malaaka ya way wàllu ji woon Seydina Muhammad xare Badar keroog lañ ñëwaat mësuñoo ñëwaat doo gis kenn ku ne keroog ahlu badrin bi ma leen gisaatee ku sëñ Tuubaa tubaab bi seen fas yi tàmbali di saw tëdd ñoom it ñi ko gis nelaw say ba nelaw pënd bi wuri mu julli tisbaar julli tàkkusaan julli timis tubaab bi na leew ci àll bi kenn yëngu mu julli gee naafila ba noppi jóg xool leen fii laay fanaan ba xam gën góor moo naan ma jugoon ñu dem. waay fii laay fanaan lii tey tubaab yi jàngaluñ ñu ko. Mm-hmm. xam nga luñ ñu jàngal. Mm-hmm. nii lañ rayal la joor. ak ay feder. man Samori Touré école laa jànge niñ ko rayee. Mm-hmm. tubaab yi seen victoire yëpp. jàngal nañ ñu ko à am defet ci sëñ Tuubaa nëbbu nu ko loolu est-ce que desewul ci ñun nag waa ci ñun non ci ñun la des mais aussi attention man damaa dem Gabon mhm. dem naa ba Mayumba mhm. évêque bi keroog dañ koo laaj ne ko mhm. maa ngi ànd ak sëriñ ko sa taaw sëñ Muntaxa maa ngi koy nuyu ñu ne ko ñun dañoo soxla archives yi sëriñ Tuubaa yi des fii mu ne yaa rien ma ne ko non le marabout Cheikh Ahmad Bamba mu ne waaw def na fi sept ans mais benn archive nekkul Gabon loolu na waar ma ne ko lu tax loolu. mais ndekete après lañ comprendre ñun. ah lu ngeen comprendre. Rome lañ woy làbbe yi gën a mag. Hmm. ne leen kaay leen xool mbirum sëñ bi parce que kii jaaxal nañu. Hmm. làbbe yi dañoo amoon xam-xam. Hmm. biñ duggee ci xërëm yi génn. dégg la sëñ Moussa Ka wax. keroog làbbe yi di ko kab la naan leen maaraabu bii mag la. nuroowul ak sëñ si ngeen daan sànq mboolem rijaal yi moo ci gën dim pànk. suñu Musaa Ka ne Bàmba ne leen duma ñi ngeen daan sànk te billaahi wallaahi ab dërëm du ci tànk mhm. labbe yooyu nag ñoo réunion ak tubaab yi ne woon Mayumba saisir le gouverneur bu France ne ko lii ma dégg ne def na leen ko bu ngeen ko génnee ëllëg àdduna bépp moom nañu ñuy topp jox leen ñu ko ñu rëbbi ko ñu nëbbi ko moo tax ñu jël archives yooyu yóbbu ko Rome mhm. sànq rek maa ngi wax maître Mbaye Dieng l'avocat maître mbay Dieng ma ne ko. Mhm. yéen les juristes yi nga xam ne gëm ngeen sëñ Touba pourquoi porté wuñu plainte waa Amérique porté plainte waa France ñu jox ñu suñuy archives hmm. ndax tey jii man yi ma jàng nii ci rapport yeeg yooyu diggante Saint-Louis ak Dakar rek la ci la lañ ci am hmm. leneen lu ñu am ci tukki géej gi sëñ Touba moo toog di ko nettalil boppam. te Gabon bi mu fa jógee moom moo jël moom moom tout le temps moo doon jël. xalimaam di bind wax la ne euh, yow yow journaliste nga. Mhm. àndul woon ak kenn moo nekkoon journaliste boppam. premier problème bi njëkk am jeewal la njëkk a bind. Sëñ Tuubaa bind na xasida goo xam ne fu mu dem rek day lemmi daal di wax fa def daal di bindaat daal di tëjaat. la ñëw na ayasa mindallaahi inda jeewal yi iblisa is naa day toxoo biyaawal yi dugg ndar dugg ndar ne nafaali xayri laaw xabli fi ndëri bi ahli badrin ngusoodi kadari macha allah ñëw Dakar ne nafaali xayri laaw fi ndakaawu zukran bi xat xitibal makaaw lépp bind muy bind rek daal di ci gaal gi yonent bi ne ko garaatu xaadim rasul bi taxu ñëpp jóg ràng naa la mu ne allama ni rahmaanu fi safina safina mooy gaal mm-hmm. bi an na ni xadimu silmadina mm-hmm. fu mu njëkk a taxaw Conakry mu ne bara anilaahu la daa Conakry min kulli jaanibin ilal manaakiri fu mu ca teg Côte d'Ivoire hmm. muy Grand Bassam mu ne azaba anilaahu fii Grand Bassam xablul mubaarisi inna halbasha kon xamoon na ni day dëpp hmm. fan la ci teg beneen muy dawme sànq da émission bi day dawme day alaa dawme sëñ Tuubaa dem na dawme ndeysaan dahaani rahimu inda dawmi lëwoo bi ma naa ni tasaw mais mais mais mais baal ma ah, bëgguma la dog mais li may sentir mooy mhm. endurance bi cheikh bi amoon maanaam du benn tay boo xam ne am na ci yoon bi alors que étape yi nga wax yëpp ci sept ans étape la yoo xam ne man mi ku ma ko yanoon attanu ko keneen ak keneen ku ma ko yanoon attanu ko lan moo lan la woon réellement yow mi jaar ci trasu su bi ak jaar-jaaram lan la woon réellement endurance boobu malgré coono malgré nattu bi mais mi ngi lekk ay miches yi moom Mamor. waaw mais dafa mel ne loolu lépp ci nettali dafa diis waaye ki ko doon teg maanaam loolu lépp ci nettali dafa diis mais ki ko doon teg dafa ci moom la loolu. waa xam nga lu tax. Ah. damaa am fu ma fu ma fu ma àggul. Mhm. sëñ Tuubaa dafa baylu ci weeru koor. Mhm. ci armée li dugub la ko bayloo sëñ Mandumbe. Mhm. war a dem Màkka siyaare ji yonent bi. lépp bu bu dugub ji ñoree lu ci am. Mhm. mu aji siyaare ji xaritam ba. Mhm. ndax zurman tuhibbu wa ilin satat bi ka daaru wa alimin dunihi shahdun aw aar mhm. koo bëgg donte ay montagne dox sa digganteeg moom war nga koo siyaare. waaye nag nee am naa gàllankoor ñu naa mun ak sama yàpp yaram wax wala si xel gis mi an siyaarati yi lisaani la wakal xal bi shawaaru bi mu sëlmalee ci weeru koor ixtikaaf dane assalaamu aleykum ne warang tourné yem ci yonent bi mu toog ci biir jàkka ji mu gis ahlu badirin mu ne ko ci ñii laa bëgg a bokk yonent bi ne ko ñiy bokk ci faat na mënatut a nekk ndax tuur deretay tax nee na foofu war nañ ko mbooleem garaat yi des ci àddina ni ko jëlal ak maqaamu xutba zamaan bii ma lay jox mu ne ko ci ñii laa bëgg a bokk mu ne ko ñii nag pour nga bokk ci daa am lu ko tax a dox. jiyaar ak deret di ren di moom faat na. amatul. Mhm. waaye nag jiyaaru nafsi bi des te ku ko mës songu daanu nga. Mhm. moo tax ñu ne yan ban yenoon xutbu ya ak ab daale ya te àttanuñu ko moom moom seexul xadim moo ko fob raw gaaya mhm. dëngeñ diwe yi yeneen bi ne ko nag sa nijaay yi ñuy wax sëriñ Musóobe hmm? jege na sunu borom ba bu yëgee ne ñu ngi lay teg natt dana ñaan yàlla natt boobu teggi ko sëñ Tuubaa ne ko ma ñaan moom mu jiitu mooy àjjana moom na gaaw mais lii bu ñu mënuma cee bokk ba yi ma dégg ci tukki géej gi waaw ma engagé ko tey nag safar gi maam moor a yonent bi xamal ko ne ko mm. beneen bi ci topp mooy Tuubaa da nga koo aar ba luy lor du la fi fekk mu ne naa génn kon dem sanc geneen dëkk ndax dajeeg liy lore gis nga Omar. Hmm. ku sanc dëkk da nga fay làqatu hmm. wala bu ma fi fekk. Hmm. mais sanc dëkk di xaar xeex moom maam yi sëñ Muntaxa képp ko mës a def. macha allah. mu sanc ko mois de mars avril mai juin juillet août le 10 août nit ñi xajootuñ ko ci réew mi sëriñ si di ko fiire ceddo yi di ko kalaame. ne day créer ay xaadim xaadim yu bari. loolu mooy sababu tukki bi te nee na ëppoon naa bañ a am ndax bu ma tukkiwuloon njariñu nit ñi àddina ak alaaxira du tegu sama loxo léegi nag ma ñëw fenn ci laay lim rek bàyyi la bu la neexee ñu doog a dugg gabon mooy bi mu agsee ndar waxtu waxtu wi li ma bëgg naa dagg waaye wax jeex Mamar Mamar nooy duggee Gabon yow. Mamar Mamar Mamar temps ba jeex na nga nekk ah, kon kon kon waroon a yokk seen temps. Mamar conseil privé bi mu toogee. lu mu tey dañoo juum dama lay def a xool. non ah, tey Mamar. Ah, tribunal bi. tey dama lay wax rek ñu fekkee woon tribunal bi. le 5 septembre. waaw ay ca. la mu tee gouverneur président. Kerchan Zile commissaire des colonies chef service administratif. Boya lieutenant-colonel supérieur des troupes Jourquet directeur de l'intérieur par intérim Sénapolique procureur général par intérim Kalarak médecin principal chef du service de santé Ogare lieutenant de vaisseau délégué du commissaire de la marine Bassiat conseil privé titulaire Lambène conseil privé suppléant supervise le secrétaire archiviste muy jeudi le 5 septembre à 9 heures du matin sur la convocation du gouverneur général le conseil privé s'est réuni dans la salle ordinaire pour de ses délibérations ñu bindal ko ay rapport naan le parrain éducateur de guerre sainte trouble à l'ordre public porte atteinte à l'économie du <laughs> pays exulte de la haine entre waaw la xew tey ñoom ñoom sax trouble l'ordre public c'est toi dafa trouble fii ba trouble France <laughs> trouble à l'ordre public la ñu wax porte atteinte à l'économie du pays exulte de la haine entre les sectes il doit être déporté à l'Afrique centrale avec une pension de cinquante francs par mois procès verbal numéro un délibération numéro 16 mu dem Ndar Ndakaaru Conakry Grand Bassam Lodj Mokkel Batako Abarisit Kutumi Dawme Booma Banana Kaceeki Fandi tegul cin tegaluñ ko tin sept ans mois tëddul ci ab lal kenn du Cheikhul Khadim tey kenn du ko ëllëg bu ginnaaw subaa kenn du doon sëñ jaarawul la Mam Mor mais man damay jeexal mais Mam Mor gii jeex da ngay ñëwaat ma spécial danoo war a def benn spécial boo leen ñëwee foofu ñu def ko plateau mais deuxième partie bu leen mais Mam nga Mam man leen rek laa lay ñaan maanaam yow toogoo rek di lii mais da nga gëstu ji def yoonu géej gi dama bëgg nga bind ci def ci documentaire c'est boo xam ne da nga koy séddoog ñëpp ñu bàyyi la nga tàggatoo rek ak message bi ngay laaj waaw message bi mooy am na ñu ma dégg ñu bon ñuy bëgg tere màggal gi mënuñu ko sax maa bëgg siiw loolu mënul nekk <laughs> tekkiwuñ dara wallaay amuñu seeni soxna yi ñuy tëddal sax soof nañ leen dañ ko yëg <laughs> parce que man attention ak koo mënti doon ah. boo attaqué sëñ bi ma attaqué la. waaw. te bu ma lay attaqué ci wax nii dama laa gisut. Hmm. mais su ma la gisee dama koy faj. Hmm. parce que man dakaar laa juddoo banlieue Dakar. Hmm. football ak lu ne ma def ko gis ngeen douzième gaynde lu ne ma maam nanditeem moo toog di wax ci sëriñ bi. ba pare. concentré wu ci sëriñ bi nag. waaw temps bi jeex na Mame Mor Sanjogu damay àggale lii may. naan di teg nga maanaam damaa bëgg nit ñi nga xam ne ñi ngi attaqué yoon wi. Hmm. nan yaru ñun ni sëñ Touba mel neex nañu. Hmm. te ñun ñoom ni ñu mel neexuñu te ñu ngi ci maandu. Hmm. gor dëgg day maandu. te nag ñàkk jom. ak ñàkk rasu mooy tooñ ku la mën. dëgg la. sëñ Touba du morom sëñ ah. Mountakha est-ce que bëggul jooy amiin amiin ku bëgg a jooy da ngay tënk la mën bëgg jooy rek koy def waaw moo waaw ah. moo tax moo tax ma leen di ma leen di dànkaaf parce que buñ sañoon réew mi jàmm rek a fi am ah, gii nag fi may tëjee. Hmm. mooy euh, marché du monde la. Hmm. ku ne ngi gis boppam. économiquement xanaa xamoo autoroute à péage bi. Hmm. ki ko waroon a def Mali la jëmoon procès bi Ablaye Wade fa la ko jëmee woon Dakar Mali pour les malien camions yi. di dugal xaalis ci autoroute. Mamor temps bi yaa ngi jël waa Inde. kon indo bi indo bi ngay xuus de. non dina am dina am incha allah rabbi <laughs> deuxième jërëjëf Mame Mor Mbaye ah. ah. yoonu géej gi ñu lay jaajëfal bu baax a baax ah. sama sama bay sama baylaat bi nag maa ngi ci ah. sa baylaat dinaa ko teg ci oto bi foo ma wax ba bu la neexee sax ma indil ko sa kër. dañuy màggali Ila Touba. jërëjëf ajaratu kon ñu lay jaajëfal bu baax a baax. bëgg ñoon mu jeex mais nag nee leen saa njóogu mu bàyyi ma. non amul problème mook son yi bu boole yow kale woo fréquence te woo rajo. non non non dala fan dala fan rek. non léegi maa ngi sa avocat léegi dinaa jërëjëf Mbaye ajaratu kàddu gaa ko ajaratu jërëjëf. man de wax jooju rek gi ma reeloo déggal maam Moroune Baye commencé na wàññi yokkati na. <laughs> damay réew mi bëgg a dee mais macha allah lépp ci jàmm la xaj yow it nag nga nekk nit ku baax. Ah, waaw nga nekk ah, nit ku baax vraiment. merci beaucoup ñu ngi lay jaajëfal maam Moroune Mbaye nekk animateur di waxtaanee Serigne Touba ak xasida yi fële ci euh, Touba TV ñu ngi lay yóbbante ci sunu baay bu baax boobu la di Alaaji Mbàkke yu fay ñu ngi koy nuyu di ko ziyaar di ko ñaanal taxawaay bi yàgg bu baax a baax ki la ki la jox tissu bi kan nga wax. doomu sëñ Fallou ban ak sëriñ Jiiri Mbacke. xalifa sëñ xalifa sëñ ah ok mi ngoog ñu ngi koy jaajëfal. moo ne ma lii maa la ko décoré ci màggal gi. jeex na incha daf may seetaan di setuur ay xéewal rek. wallaay ndeysaan waaw maa ngi jaajëfal nañu la Mame Mor Mbaye ak euh, Omar Gueye mi la dalaloon ñu daal di dem nag jël tampon India Show.